ban xëyee pare nañ ko bala midee lépp set na macha allah di waajal rek guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni guddi googu moo tax ñëpp di sonn moo tax ki ñu sonnaloon mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral ñu ko ba tax ñuy def ay déplacement ñëpp ñëw Tiwaawan tey ñëw fii ci course bi ngir jëm ko sétal di ndokkeel ñi fi nekk ñepp di leen ziyaara di wax ni yalla mi am seen fay yalla leen yalla fay yalla mi nga xamanteni dara do ko yàlla yàlla kon ñu mëna wax ni rek gàmmu gi incha allahu rabbi wàccaay gi tàmbale na ndax tay na sentu bu njëkk ci wër wi bu feñé ñu burdu bu feñu ñu bay ba altina ñu tàmbali burdu ba kon gàmm gi dina don entre le 30 et le premier soit mu nek jeudi soit mu nek vendredi inshallah rabbi di ñaan yalla yalla ci yalla yóbbu ak jamm sunu kilifa yalla bayi len fi ban téwé bis ma sha Allah rabbi li nak di wane cawarteg talibé yi mu nek ci yor yor bu xawa tang waye nit ñi sentiruñ ko ndax pas-pas bi am ci li nga xamante ni njabootu Seydi El Hadji am nañ ko fa tabarakallahu di nuyu seen sunu responsable moral Serigne Mouhamadul Moustapha Sy ayadahu llahu wa nasara di leen siyaare ñëpp di leen baalu xàq xam naa ni incha allahu rabbi bu ca kanamee ca ngoon ñu ngay waajal bu dee weer yu feeña ca burdu ba bu dee feeñu ñu jàpp ko altine itamit ngeen ànd ak xadara malikiya ca Bourduba ca zawiya Serigne Babacar ak zawiya Seydil Hadji Malick bu ko defee après ñu tamit ñu génn dugg ci Bourdu populaire yi ñuy dugg dakaar ñuy dugg feneen ci région yi dara du ump ci gàmmu gi incha allahu rabbi kon di leen dox dig jaje fan yu néew wala waxtu yu néew incha allahu rabbi course baa ngi nii nag mbokk taalibe yi ànd ak pass pass pas ak seen yéene discipline bay ko bay bu set ci ci ci ci daal macha allahu rabbi kon ngeen ànd ak malikiya wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dafa asar daanee bañ lu ko saal balaa Cheikh mu wax mu ngi lay